dese ñaari nit kii mooy directeur de campagne du candidat Bassirou Diomaye ki ci des di porte parole am war a tëj jotaay bi délivrer leen li nga xam ni moo di message yu le candidat Bassirou Diomaye Faye ak message yu président Ousmane ko dañuy woo ki nga xam ni moo di le directeur de campagne. Monsieur Moustapha Mbaba Guirassy. salaamaaleykum. sant yàlla bu baax. suba wala gannaaw suba. incha allah ñu dugg Ramadan. nangul sunu koor. di yoon joo xam ni fa la Sénégal di jaar baax ba faw di leen jottali nuyu président Ousmane Sonko di leen jottali nuyu président Bassirou Diomaye Faye lii rafet na lii jar na sant sunu boroom damay faral di wax ni damay seetlu ni am na loo xam ni ci julli ci dañ ko fonk lool muy julli ma seetlu ni ci julli dafa am loo xam ni soo ko waxul sa julli baaxul muy faatiha wante ci faatiha googu am loo xam ne benn ñaan kott moo ci nekk mooy yàlla teg ñu ci yoon ihdina siraatal mustaqim wante mu amaat feneen ci julli loo xam ni ñaan la ñaari ñaan yooyu kott moo nekk mu nekk farata mooy fi ngay waxee salaam asalaamu aleyka asalaamu aleyna asalaamu aleykum li ma fa bëgg wax mooy soo taxawee nekk ci taxawaay lenn rekk nekk ci dund lenn rek la war mooy ñaan sunu borom teg la ci yoon amul noflaay amul noppaleku benn ñaan kot doo fa ñaan mukk doo fa ñaan mukk jàmm ji doo fa ñaan noflaay mooy teg ma ci yoon teg ma ci yoon teg ma ci yoon kot nga ci def wante résultat ba bi nga fonkulaayee bi nga toogee bi ngay noppaleku bi ngay taxyaa mooy jàmm na ñëw moo tax xeexu Ousmane Sonko yoon ji mu jaar yoon ji ko sunu borom jaarale yoon ji ko sunu borom jaarale moom ak Bassirou Diomaye Faye léegi egg nañu ci étape fonkulaay jàmm mooy ñëw senegal salaam gi lii wane na ko gis naa tey bi ñuy caravane suma yaram daw ma gis ay boulanger ay ouvrier ay xale ay maire yu màgget ndeysaan di fecc bég wane seen békkee di sant sunu boroom di santal bopp sénégalais kon Sénégal dafa am lu rëy tey jii lii dafa rafet lii xaalis joxew ko sunu boroom li muy wax mooy kenn mënul dugal loxoom ci xolu nit def ci jàmm inspiré ko lu baax lu dul man yàlla kon yàlla moo ñu may lii yàlla moo ñu may Ousmane Sonko yàlla moo ñu may Bassirou Diomaye Faye yàlla moo ñu may coalition bii ak nitu jàmbaar yi ngeen doon ba jàmm dellu si Sénégal sant sunu borom waajuram ci jigéen xamul leen ko keroog maa ngi gis benn photo këram ma gis sa benn mbaam bu mu fàttali ma village yoo xam ne xam naa ko fi ma soqee ko sant sunu boroom bu baax bi mu ñu mënee yónni koo xam ne moo nar a président am yëg-yëg doomu aadama dañ koy ormaal te kooku ak fi mu xam na lan mooy coono xam na lan mooy nit xam fanaan te lekk Sénégal naa wax ak surtout ñi nekk fële booru Matam naa wax ak ñi nekk naa wax ak ñi nekk Kédougou ma wax leen ni yërëm seen bopp ndaxte sa ndey amul alal sa bàyyi amu ko li nga moomoon Macky Sall jël na ko ñu ñëwaat xaar ba tey jii foofu ndax la ak saako ceeb ndax la ak ay oto nga fàtte sa ndey fàtte sa coono fàtte lépp yàqal sa doom mu ne ma ma wax ni dara jaru kuy denc alal di ko denc ci armoire di ko denc ci banque ngir yàlla boobu amul solo bi am solo mooy li ngay jox sa doom li nga koy jox ci sa doom dimbali ko mu nekk ci école bu baax ba mu nekk foo xam ni yoon am na fa foo xam ni su amee bagam dinañ ko dugal ci université ni mi ngi wante ñu gën a taxaw gën defar taxawaay surtout bis ba bis ba na nekk def ni moom mooy Diomaye Faye dafa am solo trop négligence li may faral di wax ñu ne ma su ma jëlee benn maçon mu tabax joxoon ma délai une semaine affaire bi dem deux semaines mu ne ko waaw yow da nga tardé mu ne ma wante lii rekk ci des ma ne rekk boobu moo ma rey rekk boobu moo taxoon xale bébé yële dee ci sunu hôpitaux yi jooju moo tax immeuble yi di màbb rekk jooju moo tax dara mënul baax bu leen xeeb waxtu yoo xam ni les dernières vingt pour surveiller le vote pour taxaw loo xam ni xeex ko depuis des années mu bañ a nekk loo xam ni day naxasaay na ngeen taxaw bañ a négligé dara bu leen tayal tayal mën na yàq seen ëllëg yàq ëllëgu Sénégal nee moo insister bu baax ci loolu pour que ñu surveiller vote bi sécuriser ko. ndam boo xam ni ndamu Sénégal la ndam bi revenir au Sénégal ma jeexalee foofu xam naa ni gudd na wante day am solo trop ma insisté ci dafa am ci ma leen mu ne ma Diomaye Faye il est euh, de sa barbe est-ce que vous pouvez lui de d'humilier un sa barbe mu ne ko mu ne ma mais il a l'air très sévère il a l'air très dur mais sant yàlla bi ñu amee candidat joo xam ni am na fulla ak fayda joo xam ni ak li ñu koy ragalee mooy Sénégal ni ñu koy yàqee dootul amati kenn dootu ko mën a ci def sant bu baax kon vive Diomaye Faye vive la coalition Diomaye Faye vive le peuple sénégalais tous ces leaders am na benn leader boo xam ni dooleeku na tey jii muy Birima Mangara di ko sant ko gërëm di sant tous les leaders yoo xam ni ñu ngi xeex pour que le Sénégal s'en sorte vive la coalition vive le président Diomaye Faye wa salaam. merci. DJ maa ngi ñëw. dañ ma wax léegi ni dafa am ku réeral caabi oto marque Toyota. donc su ko su su amee ku ko for mu ñëw fi jox ma ko benn marque euh, Toyota caabi oto donc dañuy tëj te balaa ñuy tëj foog gars seen yaram tàng dama bëgg.